mbokk ak xarit yi saxoo di seetaan Sénégal TV comme li ñu leen ko diggee woon rek waxtaan bi jëm ci wàllum viol yi dañ koy wéyandi ak bu buñ ne viol nag ku ne xam na ne ci société bi lay xewee waaye bu buñ ne société dafa am ñu xamante ne ñoom ñoo féetewoo di def ay études jëmale ko ci biir société boobu da di yoon nag bu ñu yëkkatee thème bu mel nii ñu daal di dem seeti leen amal ci ak ñoom waxtaan dem nañu nag seeti sociologue bi di Adia Tandian xam dafa màcc lool jëm ci wàll wi. li wax ni euh, fan yële doon naa def émission ci kaw euh, ñi nga xam ne dañ leen di siif siif nag buñ ko waxee ci suñu réew yi bëri na lu ñuy jàpp ni góor a koy def jigéen euh, wante nañu xam ni siif mun na am ci ñaari fànn yëpp di nga gis ay dëkk yu nga xam ni foofu jigéen ñi dañuy siif aussi siif nañ ay góor yu nga xam ni dem nañu réclamer toll na ci 8 pour cent cest a dire téeméer nit yoo jël ci góor ñi juróom-ñett euh, am nañu problème yu mel noonu wante ci suñu biir réew fii lu ñu ëpp euh, ci luñ ko xamee mooy góor mooy siif jigéen alors doon na mbir mu nga xam ni euh, tiital na nit ñi heure bi ñu toll ni parce que léegi dafa bëri bëreewaay bi nag dañuy jaaxle est-ce que li ko rajo yi di wax te rajo yi dafa bëri journal yi bëri télévision yi bëri ñu koy wax moo ko moo ko jegiloo dayoo wala mbir mi moo demee noonu loolu nag boo ko bëggee xam il faut que nga dem jàngat mbir mi euh, dem def étude pour xool ko soit ci biir ndakaaru wala ci biir réew mi xam ngeen nag étude dafa cher dafay laaj moyen yu bëri donc euh, beneen moyen bi ñu am mooy saa yu ko euh, journal yi génnee ñu wax ci nga jënd lu toll fukki journaux nga xool est-ce que journaux yëpp yiy wax ci viole ci même viol la ñuy wax ci même nit ñi la ñuy wax walla même endroit walla même bërëb ci ngay xam est-ce que bëri na walla bëriwul. changement bi lu xaw a yàgg la tuuti euh, suñu mag ñi njëkk ñi da ngay gis même bu fekkee euh, du ay xale yu góor lañu euh, daan nañu fréquenter ay club daan ñu baal yi Euh, nous def ay nu ñuy nuit blanche ay veillé mais euh, temps yooyu dañu doon sàmm góor da nga daan xool jigéen comme sa sœur di nga ko daan euh, protéger da nga ko daan jamono évoluer parce que temps boobu suñu espace c'était pas trop complexe espace bi léegi dafa complexifié parce que dans les grandes villes nit ñaa ngi dëkk euh, am na ñuy ñëw te dëkkuñu ci biir dëkk bi ay liggéeykat lañu walla ay ñuy ñëw daan seen doole la walla ay gan walla ay touriste donc ñoom bu ñu ñëwee bu ñuy jaxasoo ak dëkk bi dafay am lu nga xam ne dañ koy joxante loolu la sengoor di waxee la donner et le recevoir saa yoo taseeg nit nit kooku nu mu tuuti tuuti am na lu mu lay bàyyil am na lu muy jël ci yow tamit donc bu nga xam ne da koy yóbbu mais yow tamit amna lu mu lay bon influence yooyu du du du teel progressivement lay nek donc en plus ngay contacter ak l'extérieur day tax yéen jukko yu nek à l'intérieur day changer day changer touti touti progressivement ba mu finalement mu jéggi dayo ba légui internet ñew internet aussi mën nga ci tok di xol lu la neex donc mën nga xol li xew bitim réew te demuloo fenn te lo lu cher boo fayee téeméer mun nga xool ay film yi nga xam ni euh, di nga ci gis yaramu nit di nga ci gis euh, yaramu neenu jigéen te yooyu daa ko gis daawoo ko gis ci suñu biir euh, espace bi gis nga phénomène yi nag day indi ay changement de mentalité ay changement de comportement ba tax na population di exiger di pousse les les interdits ah xale yi léegi na nga leen bàyyi rek yal na la ko yàlla sàmmal bo dem nañ ba ne léegi njaboot da ngay nekk njabootu kanaar dootoo nekk njabootu ginaar ginaar yow yaay jiitu sa njaboot topp la mais kanaara day jiital ay doomam topp ci ñoom donc gis nga lu wax boobu sax day changer ay mentalité day pousse waajur yi ñu ne léegi nañu may euh, quelques permissions aux enfants nañ leen bàyyi ñu dem ñu am permission buñ ne viol nag xel yëpp day dem ci mbedd yi waaye ñu seet ne léegi viol yi dafa bari lool ci biir kër yi nekk ci biir famille yi nit yi di ko dund di ko nëpp nëppal lan moo indi viol yooyu ci biir kër yi. téeméeri viol boo jël juróom benn fukk ak juróom ñaar yëpp ci kër la xewe te généralement ñi koy def muy ki nga xam ni dañu ne 74 euh, pour cent des viols sont commis. n'est-ce pas par quelqu'un connu de la victime Moi, Témer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent cas de qui, qui ki ki ki ñu siif ki ki donc là, loolu lan moo indi donc soit ku ko jege la le baayam walla ku kuñ ko dënk wala doomu jiitle waaw bàyyi wala euh jigen gi ñu dënk ko nga xamni eh, mu ngi dëkk ak doomam bu góor doomam bu góor bi siif doom eh, xale bu jigéen donc généralement eh, viol yi ci lii la parce que viol aussi du phénomène bu brusque généralement du brusque day fekk le le l'auteur xaw xaw na gete victime bi gete na ko ba xam heure yi nga xam ni ci lay libre heure yi nga xam ni mu foofu la nit ñi ñàkk contrôle yooyu yëpp dañ koy calculer ba nga xam ni heure bu jotee rek da koy def wala euh, nit ku nga xam ne am na influence ci ci victime bi c'est-à-dire que mun na mun na ko tiital jël fitam n'est-ce wala mun na ko napp wala victime bi dund ko dund ci ak moom nga xam ni moom moo yore soit lekkam moo yore solom wala moom moo ko yilif daal parents yi nañ bàyyi diw yaag diwo yee bokk benn baay yéen ñaar bokk benn baay affaire bi nañ ko nañ ko régler à l'amiable ci biir famille bi day tas famille bi nañ bàyyi loolu ginnaaw moom mbokk mi nga xam ni moo violé mbokkam ba mu koy def xoolu ci famille bi saa yi nañ ko dénoncé ci suñu thème bay passé Ndoye Bane dikkoon na ak ñun ci li nga xamante ne moo di responsabilité parent yi waaye gannaaw responsabilité parents yi ñi nga xamante ne ñoo di ndeyu mbir yi ñi nga xamante ne mbir mi ñoom lay dal ci seen kaw ban taxawaay lañ ci am. Euh, dañuy tooñ suñu <laughs> mbokk jigéen yi ci seen solo yi man jàpp naa ni alalu jàmbur alalu jàmbur euh, il pare que boo demee Makka man dem dama mais dama ko dégg. ne boutique yi heure julli dañ ko tëj dañuy dem julli ji n'est-ce après nga ñëw am na dëkk tubaab yi nga xam ni dinañ tëj boutique bi mais vitre la yaa ngi ci mbedd bi mais yaa ngi gis lépp lu nekk ci biir. parents yi la seen doom su amee trois ans rek ñu ko commencé da solal dangal di ko yóbbu xale bi xamul dañ koy ko dañ koy dañ ñam ñoo koy jëndal yére jëndal ko dangal jëndal ko fiso jëndal ko ay eau mu magalé non nga koy yóbbu jardin mais xalé bi su démé ba am 10 ans non lay solo non rek la mëno solo donc yu bon yoy muy sol ci biir kër gi la commencé à l'âge de 3 ans mag ak mom ba am 10 ans lool lay sol mais su fekkee xalé bi carrément comment nga so ko solal ay yéré yu bax bi mu nekkee xale ba daraam du feeñ mu magalé ko magalé ko su su du xam yéré yooyu.

wala ma nek président Macky Sall ku fi violé dañ lay tëj at yi yaay ji am. par exemple peine d'emprisonnement yi nga doon wax wa est-ce que on devrait pas garder plus longtemps le violeur gën ko recycler pour que mu mu change ensuite le prisonnier aussi bi nek prison euh, buñ ko couper encore avec toute relation familiale euh, dina xaw a metti parce que man jàpp naa ne bu ñu jàppee borom jabar ki nga xam ne mu am mu xam wala mu xam nga ko deux ans trois ans du gis du c'est pas bon est-ce que duñ leen kereel ay centre nga xam ni léeg-léeg di bàyyi ak une semaine après ñu delloo leen loolu day tax xolom euh, parce que nit ki bu fekkee nga liberté nga liberté di nga xam donc ñu indi la sa jabar ak say doom ñu dund ak yow une semaine après ñu génne leen ñu yóbbu leen yow loolu boo koy boo koy gis da ngay da ngay rëccu li la li la nga am luxe bi. mbokk ak xarit yi ñu doon seetaan defe naa ñoo ko gisandoo viol nag nekk na loo xamante ne jaxase na suñu societé bi loolu waaye comme niñ leen koy waxee saa su ne rek dañuy continuer rek di wëyandi waxtaan bi def lépp lu ñu mën. ba lépp lii di viol même bu jeexul suñu société sax mu mën fee wàññeeku lool xanaa rek di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah.